ñan ñooy taalibe yéesu saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu nañu bamtu nettali bi weesu benn lan moo xew bi ay yawut yuy lakk grek waaree ci antios ci ñu dul yawut ñu bare ci ñu dul yawut gëm nañu borom bi yéesu foofa ci antiyos lañu jëkk woowe taalibe yi gaayi kirist yi ñaar mucc gi ñëw ci ñu dul yawut lan lay tekki loolu mooy tekki ne nit ñëpp mën nañu mucc day tekki itam ne mucc ajuwul ci xaraf ak topp yoonu musa mu ngi tekk itam ne sartu diine wi jëm ci lu dagan ak lu daganul yàlla far na ko ñett ci seen xalaat man njàngale lañu war a topp li yeesu ak ndawam yi jàngale te ñu bind ko ci téere kóllëre gu bees gi. ñeent ci seen xalaat ndax yàlla dafay nangu saa yu nekk lépp lu ñu ko ñaan. déedéet bu nangoo rekk dafa di gën ci nun juróom ci seen xalaat lu tax ba tey jii ci ay gox ñuy fitnaal ay taalibe yeesu seytaane mooy def nit ñi di fitnaal taalibe yéesu yi moom bëggul nit ñi xam xibaar bu baax bi ba mucc nit ñu bari it dañu foogoon bu nit ñi wàccee aada yi dara mën naa xew xamuñu woon ne yeesu dafa ñëw ngir goreel nit ñi te may leen dund gu bees